بالله سمع العليم من سر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم سلام الله ورحمته وبركاته وإرانه علينا عليكم السلام comme ni ngeen ko xamee kama laa yaxfa aleykum ñi ngi fësal sunu keno ci kenn ki yàlla kennal te dootu kennal kenn ku mel ne moom kooku nag mooy bàyyi Fatima ak Roqaya bàyyi Zeynab ak Umu Kalsuum maamu seex na seex saad bu sëriñ maam alxaaji Malick yaakaaru maam Cheikh Mat Bamba ñi ngi nuyu ñi nga xamante ni si ñoo nekk ci télé bi yépp di nuyu kilifa diine yi nuyu kilifa aada yi waaye nuyu itam ñi nga xamante ni si ñooy faral di seetaan télé bii nga xam ne mooy prestige te nga xamante ni si yàlla dogal na mi ngi fii nga xam ne ci Thiès waaye di nuyu bu baaxit nag sëriñ Muniru Njëgën bi nga xam ne moo fi teewal maam Alaaji Ahmad Baro Njëgën fii ci cees waaye nuyu sëriñ Babacar Si mën suur waaye nuyu itam sëriñ Muntaxa Mbakke waaye nuyu bu baax itam nag sëriñ Saaliw Ture waye nuyu bu baax tam nag waa kër maam Seydina Limaamu Laay Serigne Assane gay Laay ñu ziar ko nuyu ko waaye nuyu wàcce na ba bu baax itam Baye Cheikh Tidiane Seck waaye nuyu bu baax it nag waa kër képp koo xam ne yaa ngi bokk ci këru diini ñu ziar la nuyu la waaye nuyu sunu mag Alxaaji Idrissa gay ak Serigne Abdallah Diop nuyu kilifa yëpp nuyu bu baax it nag DG Alxaaji Pape Doumbia di ko ziar bu baax di ko wax yàlla na yàlla àggale ay mébétam waaye nuyu sunu caméraman Serigne Cheikh Fall. ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci résiba ak fépp fu ci nekk waaye nekk tey liggéey ci tele bi ñu ngi lay ziar nuyu ustaas yi fi nekk ñoom ustaas mbay nga xam ne ñoom ñoo jóg léegi muy sëtu baay alxaaji njaase mbay ñu nuyu waa kër baay njaase mbay yépp nag di leen ziar waaye nuyu sëriñ Babacar Njegéen ak ki nga xamante ne si mooy euh, taalibe Cheikh Koyaate di ko ziar sëriñ Cheikh ñu fas yéene ñëw rek ànd ak yéen ci gàddaayu na bi ci émission bi nga xamante ni si mooy daw fii danga xam ne wax naa ne bu ñu nee hijriya muy gàddaayu nabi waaye bu ñu nee miladiya muy li nga xamante ne si mooy juddug yonent yàlla Insa yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam sëriñ Cheikh moom la ñu yàlla royloo te sunu borom subhanahu nee na lu ngeen di roy ak ku ngeen di roy ki ma leen royloo mooy yonent yàlla Muhammad li tax ma royloo leen ko nag mooy jëfam dafa sell waaye ay waxam dafa yiw waaye li ma ko sant itam mu te mu war ko def mooy li nga xamante ni si moom laa ko yónnee da nga xam ne ñoom oustaz euh, ñoom oustaz Ousmane Mbaye moom lañ doon waxtaane léegi mu yërmande yonent bi nag laataa ñu koy yónni yërmande sunu borom dafa génn ci moom loolu ñuy wax soxor ndax alxusuudu laa yusuudu ko iñaan du nekk sang te sang yi nga xamante ni si sunu borom yónni woon na leen yépp 124 mille yi 313 25 cinq yi rasulullah moo ca gën moo ca man moo ca raw moo tax ñu tamponeel ko tampon bi nga xam ne dootuñ ci tamponeel keneen muy xaatim nabi ina wa imaamil mursalina mooy njiital ñi nga xam ne ñoom la ñu yónni ndax 313 yi bi ñu leen génnee 25 yi gi ñu génne leen 5 yi rasulullah moo ca gën waaye yonent yi nga xamante ni si nag sunu borom subhanahu wa taala moo leen tànn ñoom ki nga xamante ni si moom lañ ci tànn ne ko li ma la yónni mooy yërmande wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin du ma la yónni ci univers bi duma ma la yónni ci nit ñi duma ma la yónni ci fenn foo xamante ne si lu dul la ma la yónnee yërmande kon lan mooy yërmande nag ak kan moo bëgg ku la yërëm ndax alhaji ibrahima saaxo daf daan wax ne yàlla dafa am ñu koy ñaan am fuñ koy ñaane am nuñ koy ñaane waaye yonent bi itam bi ko yàlla yónnee yërmande dafa am ñu ko sant ngir mu yërëm leen kon ñi nga xamante ne si bëgg nañu yàlla yërmandeem juréy jooju nga xam ne joxoon na ko yonent yàlla muhammad nga xam ne bi mu ko ko joxee ba pare daf ko sant ne ko li may bind bëri na yaa yu lazina amanu ñi nga xamante ne si mooy ñi nga xam ne gëm nañ te ki nga xam ne mooy sëriñ Ousmane doon ko waxtaani léegi mbay ñu nuyu ko bu baax moom it ziar ko comme ni ma ko waxee bi may commencé waaye yaa ayu lazina kafaro nga xam ne kon tooñut ñi gëm waaye itam tooñut ñi nga xam ne weddi nañu ndax dafa wax ne yaa ayu lazina amanu waaye mënoon na ci yem mu dellu siwaat ne yaa ayu lazina kafaro waaye mënoon na yemit ci loolu mu dellu siwaat ne yaa ayuha naas kon yow nit yow laay wax kon ëllëg sunu borom subhanahu pare na ak jaami yàlla yi kon kum ci doon ku nekk li la yàlla sant war nga ko xam ndax itam bi mu waxee yonent bi ne ko li ma la yónnee yërmande la te it yërmande jooju it bu ma sañoon xeet wi nga xam ne maa leen bind muy doomu aadama yi te nga xam ne ñoom ci caatu aadama yi nga xamante ne si ñoom la sunu borom am ñun ci la bokk bu ëllëgee yërmande jooju moom laa bëgg nga yërëm leen dafa am lu mu wax te war nañ ko bàyyi xel muy wama xalaqtul jinna wal ins illa li yahbuduni binduma nit ak jinne lu dul dañ ma war a jaamu waaye yëguma itam nit ak jinne bañ maa jaamu jaar feneen ba ëllëg ñoo it ñuy yaakaar li nga xam ne mooy yërmande ji nga xam ne moom laa yónni woon yonent yàlla Muhammad kon doomu aadama bi ko yàlla bindee ba pare teg ko li mu ko njëkk a sant mooy mu jaamu ko jaamu ko nag bala nga koy jaamu da ngay xam ndax nit lépp loo xam ne xamuloo ko mënoo ko def ndax yonent bi bi li muy baax baax sunu borom daf ko jàngloo iqra la ko wax mu ne ko ma ana bi xaar mu ne ko bismi rabbik waaye nga dellu siwaat it gis ne sunu borom subhanahu wa taala nee na fa arifuni qabla in tahbuduni fa in lam yarifuni fa kayfa tahbuduni yow naka nga may ñàkk bëgg xame ba pare bëgg maa jaamu kon yow mi nga xam ne da nga ma war a jaamu li tax nga may jaamu mooy li nga xamante ni si xam nga ma waaye su fekkente ni bi xamuloo ma soo ma bëggee jaamu léegi nga yàq ndax caabi bu ëppee du ubbi bu manqué du ubbi te gis nga bokki jullit yi nañu dellusiwaat siwaat ñu xam ne ñun ay jullit lañu bu dul jullit yi sax ñun ay doomu aadama lañ ñun ñi ci desit nag fëgg fi dënn wala yëkkati ko fi loolu jaru ko xam nga doomu aadama lan la war a nawee doomu adama wala lan la war a tiitaroo mooy maa la gën a ragal yàlla ndax sunu borom subhanahu wa taala nee na inna akrakum inda laay atqaakum ki nga xam ne moo ma gënal ci nit ñi li ma ci bind ni mu toll ki ma ci gënal mooy ki ma gën a ragal waaye ki nga xam ne nag day ragal yàlla mooy day sàmmonte ak li koy xamante ni si sunu borom subhanahu wa taala loolu la ko sant li nga xamante ni si moom la ko tere mu bàyyi ko waaye ñun Sénégal fii mu nekk nii ñu toll dafa am lu fi dugg si ñun ñu jël sunu làmmiñ fàtte li nga xamante ni si moom la nu sunu borom sant ngir balaa bii nga xam ne moo fi dugg te ñun ci boppam ñun ñoo def lu tax balaa dugg fi sëriñ cheikh gis nga nit ñi boo déggee ñu naan laa yukallifu nafsan illa wusaha yàlla tegul kenn lu mu mënut waa kon xanaa feebar bi yàlla teg ñu kon dañu fàtte ne yàlla lum ñu teg lu nekk xam na ne attan nañ ko waaye buñ fàttee ne moom ñun ñoo wax ne yàlla lépp lu mu teg doomu aadama loolu attan na ko ñun ñoo koy wax te it biñ koy wax mooy ci alquran la nekk te alquran biñ ko ci nekkee itam yonent bi lañ ko wax ngir mu wax ñu ko waa kon léegi ñun lan moo war mooy sunu borom subhaanahu wa taala teg nañu nattu nattu bi mu ñu teg mooy indi na fi feebar feebar bi mu fi indi balaa la su fekkoon dañu wax ne soo defee lii loola dañ wala nga defe ko nii loola dañ waaye booba ak léegi ñi ngi wax bu tayee ñu wax la ne la defal lii loolu feebar bi bëgg ko boo ko defee mën nga ci mucc bu subaa ñu wax la ne la defal lële loolu soo ko defee feebar bi bëgg ko mën nga ci mucc bu ginnaaw subaa ñu wax la lële waaye loolu yépp ànd ak li médecins yi wax d'accord naa ko waaye nañu ci boole ñaan ndax suñu borom subhanahu bi nga xam ne moo nu bind binduñu ngir sonal ñu binduñu itam ngir bëgg ñu torox waaye binduñu itam ngir bëgg ñun ñu am ay naqar waaye bi mu nu bindee ba pare daf ñu sant ñu jaamu ko kon suñu bëggee feebar bii dellu génn ci àdduna bi yépp nañu dellu ñu xam ne ñun ay jaam lañ ñu delluwaat it xam ne. lu yàlla bind doomu aadama la ci gën a bëgg ndax moo ne ko wala xadd karam naa ba nii aadama waa buur bu toll ne sunu boroom wàcce fi balaa bu toll nii ba pare wàññeekuwaat ne lu ma bind nit a ma ca gënal kon yàlla du bind nit mu gënal ko ba pare mu di ko toroxal waaye doomu aadama boobu nga xamante ni si bind na ko wàcce ko ci kaw suuf mu jël li sunu borom di tere di ko def ba pare yàlla bàyyi ko fi muy dund jëlu ko ca bis ba mu ko defee mu mënoon koo weer ca bis ba mu ko defee mënoon koo won ñëpp ba ñu gis ko mu sàng ko suut sutura ba pare wàññeekuwaat ne ko wàññeekul nga tuub jéggulu li nga xamante ni si loolu nga defoon soo ko jéggaloo ma jéggal la kon yaakaar naa ne yërmandey sunu borom yaatu na yàlla nañ sunu borom yërëm waaye bokk yi nga gis ne lii nga xam ne moo fi xew war nañoo mën a delluwaat ci sunu borom lan la ñuy delloo ci sunu borom mooy yow mi daan def lu bon tey jii sunu borom nee na la na ko bàyyi lan moo tax mooy yaa ayyuhal lazina amanu qu anfusakum ku ahlikum naaran safara soosu nag sunu borom subhanahu wa waxul ban la kon yow mi nga xam ne danga daan jaay sa bopp wax nañ la ne la weeru koor wi ñëw na laataa weer wi ñëw tere woon nañ la ko na nga ko bàyyi yow mi nga xam ne danga daan jëw laataa weeru koor wi ñëw tere woon nañ la ko weeru koor wi ñëw na nanga ko bàyyi waaye rawatina nag sëriñ Babacar Njëgéen mu dajaloo ak li nga xamante ni si mooy feebar te ñépp nag ñi ngi daw di moytu li nga xamante ni si mooy feebar bi waa moytu feebar ak moytu bàkkaar ban moo ci gën a nekk farata ndax sunu borom subhanahu wa taala néew leen na ngeen moytu febar yi dedet daf leena wax ne na ngeen moytu bakar na ngeen moytu itam def lu naqari yàlla na ngeen moytu itam lépp lu yàlla tere ngeen diko def waye febar bi fim nek ñun mom lañuy daw di jël ay matukay te sunu borom subhanahu wa taala waxon ne na ngeen bàyyi li nga xamanteni si moy njaaloo man sunu borom mako tere ndax la taqrabu zinna bàyyi len ko te bu len ko jégué képp ku koy def nak jàppal ne di nga gattu aw fan waaye itam dinga ñàkk charisme muy di ñàkkit li nga xamante ne si mooy daraja waaye itam alal joo am dafay faral di tasaaroo waaye yow mi nga xam ne daan nga ko def laataa sunu borom di indi balaa bii daan nga ko def balaa bi ñëw na mënatuloo dem bàyyi ndax sunu borom subhanahu wa moo ko tere ab sëriñ terewu ko sëriñ si dañ koy fàttalee waaye ki nga xam ne moo ko tere mooy borom bi subhanahu yow mi nga xam ne dañ daan ñëw ci yow fekk la ngay liggéey ñu jox la ci wàllu liggéey nga cay def naka sudul nonu wala nga cay def lo xam neexul sunu borom te buñ la laaje nga wax lu deug te xulil haqq walaw kana murran walaw ala nafsika yow dang ko daan def bayiko bu melne yow mi tay exemple mécanicien ngay doon pap Aline ci parcel mécanicien la day réparer auto waye tay daan nga jël li nga xamanteni si moy di jëfëndiko lo xam ne ci liggéey bi ñu la ko daan laaj yow mi nga xamanteni si daan nga ko def te tay ji tere nañ la ko na nga ko bàyyi lan ngay bàyyi mooy del jëfandikoo li nga xamante ni si moom la la yàlla sant ndax nee na donte dañ lay rey na nga wax dëgg kon ouvrier yi mécanicien yi ñi nga xam ne tailleur yi lañ bépp fànn boo xam ne nit ma nga ca di liggéey sàmmoonteel ak li nga xamante ni si moom la la ci yàlla sant ndax nag lépp lu nit wax lu dul dëgg ba am ca soo waxoon dëgg la nga cee am moom mooy gën a leew ndax yan xaqullahu riba bi sa sadaqaat biir bii nga xam ne moom la daam saaxo am sunu borom subhanahu wa taala daf ko wax ne ko bayima ak mom li nga ci wara def insha allahu dana ko yëkkati jox lako te dana ko jaarale it fi mu ko wara jaarale waye bokoy sàkku na sak na utin bi lew ndax li nga xamanteni si mom nga ci duggal ndax wama min dabatin fil ard ila alallahi risqa sunu borom subhanahu wa taala neena na ma koy jox doomu adama lata muy judd la koy bindale ak mom lata muy gën aduna kon bokki julidi fi fii mi metti na waye limi métti métti nañu wat ñu xam ñun ay jullit lañ tay nak sunu borom subhanahu wa taala waxna yonent bi ne ko waxal sa ñoñ waxal doomu adama yi ne len ma ngi ànd ak way muñkat yi ndax inna allaha ma'al al sabirin way muñkat yi sunu borom subhanahu wa taala mi ngi ànd ak ñoom waye nak di jàmbat di jàmbat nakamu nakamu rew mi metti na rew mi metti na waye yow mi wax rew mi metti na lan nga defal yàlla ak lan nga bëgg yàlla defal lako ta lila yàlla tere won bayiwuloko te li la yàlla sant itam nekkuloo ci ba pare nga bëgg nag sunu borom subhaanahu wa taala li nga bëgg yow mu defal la ko mënta nekk ndax yaakaar naa ne banque yii nekk ci Thiès su weer deewee képp koo xam ne yaa ngi fay rang ngir nu jox la sa salaire dafa fekkoon nga daan liggéey yow nag liggéeyu loolu bëgguloo ñëy liggéey ànduloo ak ñoom ba pare nag ne na la yàlla defal li nga bëgg yépp loolu mënta nekk segam tubaab bii nga xam ne moo nekk ci àdduna mo am fulla ju tolni ku liggéey du la fay waxuma la ki nga xamante ni si mooy sunu borom subhanahu wa taala man kaana lillahi kaana lahu lahu ku nekkal yàlla yàlla nekkal la waaye yow nekkaloo yàlla la mu tere yaa nga ca la mu digle defuloo ko yaa ngi jël sa làmmiñ booyal ko ci jëmmi doomu aadama yi te sunu borom santu la nga lijjanti yëfu ki nga xamante ni si mooy seex li ma ma sant man daam saaxo mooy naa lijjanti li ma yàlla sant lim ma sant man mooy lim ma sant nan laa koy defee waaye santuma ma jël sama làmmiñ booyal ko ci deru gor yi loolu sunu borom subhaanahu wa taala santuma ko ndax su ëllëgee bu nu gàccee siraat gàcc jëxal na ma jëfi kenn yàlla du ko jël di ko jaawale ak kenn kum ci doon ku nekk yawma laa ko nafsun li nafsin say an wal amru yawma isin lillah kum ci doon ku nekk la nga jëfoon wala nga daan jëf yàlla dina la ko laaj kon bokki jullit yi nañu dellu siwaat ñu xam ne ñun ay jullit lañu beneen bi ci des feebar bii nga xam ne moo nekk ci Sénégal terewuñ ñu jaamu yàlla waaye nag it li daan am ci weeru koor daan jëm ci diine bi ñu ko waxee ñi ko njëkk a bàyyi mooy ñooñu daara te waxoon naa fi ne leen ku la ne toogal war na laa wax ci nan ngay tooge ku la tere nga génn war na laa wax ci nan ngay tere nan nan ngay tooge ba doo génn kon lii nga xam ne mooy ndimbal yi nga xam ne président de la république jëloon na ko ñu ne joxe na ko nañu fexe nan lay def ba àgg ci jaami yàlla yi ndax nag ku li nga jiite ëllëg yi yàlla dina la ko laaj bu dee président de la république yàlla dina ko laaj li mu jiite su dee sëriñ bi yàlla dina ko laaj li mu jiite su dee chef de service bi yàlla dina ko laaj ni mu jiite su dee directeur yi yàlla dina leen laaj ni li jiite woon nan lañ ko jiite ndax kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kon lii nga xam ne ndimbal lañ ko tudde woon tudde wu ñu ko sarax tuddewuñu ko itam maye dañu wax ne dañuy dimbali jaami yàlla yi te nag jaamu yàlla ci jaami yàlla yi nit ñi mën nañ ko waaye tey ku ne xam na ni dëkk bi nii mu méttee ñu wax ne am na ndimbal lu ñu indi booba ak tey muy bëgg a jëm ci ñaari weer ak fi nit ñi toll ci coona man dama xamut lan moo tee loolu noonu ñu ne ñëw na fi te dañ ko war a jox jaami yàlla lu tax génnewuñu ko lan moo ko baare ba tax génnut loolu lañ war a seet ak it lan moo tax ñu indi ko teg ko joxuñu ko ñi ko mérito ba pare ku génn ñu ne la da nga war a toog mais nit ñi bu ñu toogee itam du ñu lekk suuf nit ñi bu ñu toogee itam du ñu naan ndox rek tëdd dama ne képp koo xam ne da ngay dimbali ka ngay dimbali bala muy loru bay sonn war ngaa jóg taxaw ci ndimbal loolu kon président ñi ngi koy ñaan ak kilifa yi lii nga xam ne mooy ndimbal bi nga xam ne wax nañ ne indi nañu ko wala wax nañ ne ñëw na ngir jaami yàlla yi maam Cheikh Ibrahima Fall nee na ku jaamu yàlla ba raw la dabe ndab te nit ñi fii mu nekk nii boo demee ci marché yi xam nga ni nit ñi sonn nañ soo demee ci kër yi xam nga ni nit ñi sonn nañ soo demee ci hôpital yi xam nga ni nit ñi sonn nañ boo demee ci prison yi xam nga ni nit ñi sonn nañ kon li nga xamante ni si mooy ndimbal nañu ci gaaw ñi nga xamante ni si itam ñi ngi jël li ñu am te kenn joxu leen ko état joxu leen ko ñoom ñoo ko liggéeyal seen bopp ba jot ko nañu jël loolu itam dañ ko daan dimbalee ñu continuer ko bu ñu xool ci kenn ndax gis nga sëriñ Cheikh lépp lu nit def sëñ Xabbaan Guèye fii ci àdduna su ëllëgee yàlla dina la ko dencal te wax naa ne biir bii ma yor man daam saaxo yàlla li ma ci war a lekk yàlla dina ma ko jox waaye biir bàmmeel bële nga xam ne su ëllëgee bu nu gàccee siraat gàcc jëxal na ma kenn képp dong mooy dekki kàbbar yàlla ne ko saltox te laajal ma jox la kooku du kenn ku dul bàyyi Fatima ak Roqeya bàyyi Zeynab ak Ummu Kalsum maamu seex na seex Saad bu kooku mooy yaaram bi juddoo Màkka ñu denc ko Madina waa Màkka di ko dàq ne dañ koy rey ma Madina génn di ko gàttal ne dañ koy roy kooku mooy ki nga xamante ni si lu waay di yërëm nit rasulullah moo la gën a ëpp yërmande lu way meuna yeureme nit rasulullah mo la upp yermande kon na kep ko xamne da nga wax ne sopna nabi sopna yonti yalla muhammad beug na muhammad sallallahu alaihi wasallam famu tegon tankam delo fa nga tek sa tank ndax ku nele won beggo yonenti bi wala soppo yonenti bi wala do ab julit nga mer ta amna lo xamne serigne cheikh kep ku koy jëf ab jullit du ko jëf lépp loo xam ne ab jullit du ko jëf nag ku koy jëf war ngaa bàyyi xel ci la nga xamante si moom ngay jëf waaye war ngaa bàyyi xel it na nga xamante si noonu lañ koy jëfe te it nag yow ma laa tamliku nafsun li nafsin say an wal amru yow may sin lillah amul ma dellu jëfaat leneen amul it may ma ma demaat xool li nga xamante ni si moom laa war a xool bu boobaa nag làmmiñ mooy wax ne man maa leen waxoon ne leen buñ ko séddale wala tànk wax ne man maa demul woon ngir ñu seddale ko wala loxo ne biñ ko waree seddale maa téye woon sama loxo bët ne man kat su ma xooloon yaakaar naa ne danañ ko mën a séddale nopp ne man kat su ma déglu woon ñi xamante ni si ñoom lañ ko waroon a jox yaakaar naa ne danañ danaa nangu ngir ñu jox leen ko waaye bokki julli di ku ñu takk say tànk takk sa ñaari loxo wàcc say bët gàcc la ci bant bu lal bi teg la ci bant bi jële la ci bant bi yóbbu la ci margo bi génne la ci margo bi delloosi la ci bant bi teg la ci buntu jumaa ji kàbbar ne nañu ko ñaanal waaye nañu ko jullee pour yóbbu ko fan ñu ne ca armeel ya te mësoo jëfal yàlla dara yaakaar naa ne bu keroogee di nga ko rëccu te boo ko rëccoo nag di nga xamante ni si sunu borom subhaanahu wa taala lu ko waay lebal du ko yokk du ko wàññi waaye yërmandeem ji yàlla nañu ko yàlla defal kon ñi ngi génn ci fukki fan yu njëkk yi nga xam ne sunu borom wa taala moo ne weeru koor awalu rahma muy fukki yërmande wa awsatuhu maxfira fukki fan yi ci digg bi maa ko def njéggal wa axiru ritun min an naar fukki fan ya nga xam ne nag ca la ñu bëri di bàyyee nag foofu yaakaar naa ne fa la ñuy goreele nit ñi ci sawara te bokk yi dugg safara yàlla nañu ci yàlla génne yàlla nag bindul jaam ñi ba pare di leen lakk waaye jaam bi mën na def lu tax ñu lakk ko waaye yàlla moom bu dee moom rek ëllëg yonent yàlla muhammad nee na képp ku mas a wax laa ilaha illallah te gëm ne yàlla moo ko yàlla kenn la te waaye muhammad yàlla moo ko yónni da nga sellal nag téye sa làmmiñ ci baatu yaatu gor yi incha allahu yàlla dina la fay kon ñi ngi nuyuwaat ñëpp ñi nga xam ne ñooy seetaan télé bi nuyu sama waa kër bàjjen soxna Yacine Sakho waaye nuyu suñu waa kër yi ñoom soxna Maye Dieng ak ñoom yaayu daara jeeg waa kër ga yépp nag ñi ngi ziaraat képp koo xam ne yaa ngi seetaan télé bi alhaaji Pape Doumbouya ñi ngi koy ziar bu baax di ko nuyu di ko ñaanal suñu borom yàlla dolli ko jàppale dolli ko dimbali dolli ko dëgëral ndax li nga xam ne moom lay def ci dëkk bi loolu kat wax dëgg yàlla am na solo te it nag bu ko deful woon yaakaar naa ne dana gën a metti ndax mi ngi jël li ko yàlla may ko dimbalee jaami yàlla ku dimbale jaami yàlla yàlla nga dimbale ndax yàlla moo sàkk doomu aadama yi kon ñu ngi koy ziar baax di nuyu suñu jigéen soxna Sadio Dieng moom itam di ko gërëm bu baax a baax di doom bàjjen Yacine Sakho soxna Ndey pen na Njigéen di sëtu maam alaaji Ahmad Baro di sëtu maam alaaji Ilimane Sakho di doomu bàjjen Roqay Sakho moom it ñu nuyu ko waaye nuyu sëriñ mu ni sëriñ Mansour saar ziar ko ak waa kër maam Ilimane Sakho yëpp Baye Tafsir Sakho waa kër El Hadj Ibrahima Sakho yëpp di ci nuyu ki nga xamante ne si mooy xalifa ba Al Hadj Habib Sakho ak Yadda Ba Diop ak waa Tiwaawan yëpp ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziar di nuyu képp koo xam ne yaa ngi liggéey fii ci rajo bi eh, ci tele bi di la ziar bu baax di la gërëm di ñaan sunu borom prestige yàlla na yàlla gën koo yokk ba mu nekk nag national nga xam ne fépp lay àgg ndax bi am na njariñ di gërëm ñi fiy liggéey ñëpp di leen sant baax di leen gërëm di gërëm baaxit nag ki nga xamante ni si mooy sunu xarit alxaaji xaban géey ak waa pour 100% Thiès ak ñëpp rek waa prestige ñi fi nekk ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal muy groupe ba muy tele bi muy fépp foo xam ne nit ma nga fa tëdd fi liggéey ñi ngi lay sant baax di la gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh